Assane ñu doore ko ak Sénégal Cameroun tey jile la bu 17h jotee fii ci Sénégal dinañ ko mën a seetaan ñu ne Sénégal am na 1000 sens ci bu gagné match tey bi dafay dem dafay qualifié ndax Cameroun match bu mujj daf koo niiloon. waa xanaa ñaanal leen rek yàlla may leen ndam ne Sénégal gépp ñaan rek ginnaaw football bi moom lu am solo la te wax dëgg yàlla doon na lu baax pour ñoom ñu duma ko ma ñu ngi ñaan bu baax a baax waaye Cameroun ak Sénégal dañu xaw a bokk. ne nii sax si tur yi boo si dee analyse da nga yaakaar ne turu Cameroun moo gën a dëgër turu Sénégal dëgër. luy dëgër. dëgër daal góor day dëgër. turu nu ci dëgër damay nekk. waaw Sénégal waaw. a dëgër. mais si euh, si ginnaaw Cameroun moo gën a dëgër Sénégal. maanaam jamono ñoom Eto'o. waaw maam Cameroun dañoo demoon ba jàpp ni daal euh, équipe bu Afrique du ko dóor. Hmm. léegi lañ leen xaw a yeb nii rek mais Cameroun bu suudewu hmm. caaxaan du leen de. maanaam tournoi lay gën a dëgëree. comme nga ni ne Assane Sonia bu Sanjogo ay tournoi. waaw waaw si maanaam si si ba dëgër. ba dëgër ba ne Sénégal fan yi boo nee Sénégal dafa amaat gis-gis yooyu am ci moom yu bokkut ak ya gisoon ci moom. comme yan. yëpp rek ak yeneen doxalin yoo xamante ni noonu lay demee am na doxalin yoo xam boo ko doxee da nga ne ii ñooñu dañoo am fulla de am na doxalin yoo xam boo ko daan ii ñooñu dañoo bëgg ay affaire yi ay affaire yi awraag nangam nangam Sénégal moom ay affaire yi awraag nangam rek la ñuy waxtaanee xam nga mais bu njëkk. <laughs> loolu lu mu jotee lu mu jotee lu mu jotee équipe nationale bi xam nga Assane nag bëri caaxaan quoi léegi loolu lu mu jotee équipe nationale bi même bu fekkee affaire awra la am na ñu koy waxtaane <laughs> mais mosoo gis kenn ci joueur yi koy waxtaane affaire awra ak la <laughs> non mais mais mais c'est honte. football bi ko laaj ak fa mu dalee. non man Assane tey man vraiment. am affaire awra yi démb dafa am da ngaa ko dafa am loo ci bëgg a wax. dara man fa ma la laajee. mais Cameroun man sama gis-gis xam nga man mosuma dem Cameroun xamu fa Cameroun dem xamu nu mais sama gis-gis sama dégg-déggin ñu ñàkk caaxaan lañ. sama dégg-dégg quoi. waaw Cameroun sama dégg-dégg ñu ñàkk caaxaan lañ. Mhm. loolu nag damaa dafa wàll ci loola ñàkk ci gis-gis boobu ba mu egg si waat. mais Sénégal ñu ñàkk caaxaan lañ. Sénégal kay ay caaxaan fii la tàmbalee. <laughs> Sénégal kay wax dëgg yàlla moom dëgg caaxaan rek. Ah Sénégal yu bari caaxaan de yàlla xam na ko ni hmm. nañu caaxaan lool xanaa kay ñaan rek. amul benn révélation boo ci mën a def tey. ci lan Maxime déedéet tey moom dama koy leb yoro waxoon na ma baal noonu am nga ndam ba pare léegi kay nañ ñaan li góol. non euh, góol ya <laughs> ñu rus ko <laughs> rusu góol <laughs> ñaan leen bu baax. alaaji waa ji ñu envoyé audio dégg nga ko du nee na bu ñu xamee Assane dina jékki-jékki ubbi mu nekk di di di ay ay nit wala déggoo ko. kañ laa ko dégg tey ci suba laa dégg <laughs> Assane envoyé boobu. waaw waa ji de nee na bu ñu deful ndànk Assane dina ñëw di commencé encaissé. Hmm. ndax ñaari match yi mu gis mu toll. <laughs> am suñ baara suñ baara Ndiaye démb daa ñëw fi naan ay yaali ga baaxut ak moog Baye Mbaye ñaan yaali gi fii la aw. Hmm. ma ne ko bu bëggee ma joxaat la beneen. non joxe nga tax ba pare waaw ma dañ ko doon diingaat ma joxaat leen beneen démb. démb yaali waat góol bi. démb am na taj ci si digg bi kay. démb am na xaw nii la xaw tuut mu mu laalaale ko sax. laalaale lan. <laughs> digg bi la ko dugal ah oui waaw. démb am na yaali. waaw moo tax duutu ñu ma diŋat de diŋat kay moom nee naa ko jeex na moom. d'accord xam nga diŋat baaxul. diŋat baaxul waaw nit ki lu mu man dañ koy ñaanal mu gën koo man waaw daf ne ni benn visage yu la muy muy carte rouge bi point ma tëj. waaw d'accord. alaaji tey lañ suñu diggante ak Cameroun incha allah nee nañu nag daal bu ñu gañee daf ñu yóbbu ñu qualifié ndax Cameroun dañ koo mujjee dóor. waaw loolu de mooy li leer mais li nga posé question bi sànq dama ne xanaa journal yi bindeewuñ noonu. Euh, am nañ mille chances pour qualifier bu ñu gañee tey <laughs> bu ñu gañee kay tey kañ mathématiquement qualifié nañ. waaw donc dama ne bu ñu gañee Cameroun. waaw mooy dañuy qualifié laa bëggoon. waaw ah, dañuy qualifié mais xam nga da nga ne. am nañ mille chances am ci ci match say laa bëggoon wax mooy bu ñu gañee waa ji waaw waaw bu ñu gagné dañuy qualifié amul. kii amul ay sens. waaw kay qualifié nga mathématiquement qualifié nga. am nañ ah, sensu am nañ match am nañ sensu qualifié bu ñu gagné tey. waaw waaw loolu laa bëgg wax bu ñu amul sens. gagné qualifié la. <laughs> waaw dama ne bu ñu gagné dama ne bu ñu gagné laa dama ne. match say bi am nañ mille sens pour qualifié bu ñu gagné. loolu bu ñu gagné rek qualifié nañ. waaw demal alaay wala déggoo li ma la wax. <laughs> bu ñu gagné rek qualifié xam nga gagné guñ dama ne am nañu chance pour qualifier ci kaw bu ñu gañee tey. boo gañee kañ si qualifier. waa demal leer na waa euh, li Assane wax euh, loolu aussi tamit euh, dëgg la Cameroun ñoom lañ doon wax les Allemands d'Afrique maanaam seen football dafa ànd ak rigueur quoi. Allemands d'Afrique lañ leen di wooye ah. ñu nekk équipe boo xamante ne bii tamit. def na parcours boo exception maanaam def na yàgg na def palmarès quoi yàgg na jël Coupe d'Afrique jël na ko bu dul Égypte mooy ñi nga defe naa mooy ñi ëpp ñi jël Coupe d'Afrique Égypte moom mooy ki ci ëppale mais après defe naa Cameroun mooy ki nga xam ne moom moo ci topp jël na ko ay yoon yoon mu am ay génération yoo xamante ne bii tamit kii la boo gisee Aliou Cissé ak Rigobert Song euh, finaalu nañ waaw mooy final bi nga xamante ne bii Euh, ci la Eto ci lañ El Hadj Diouf ak kii quoi mooy Sénégal bi mu amee Cameroun boobu defe naa ñu ngi ko amoon final ba ca Mali lañ daje woon. série penalty ba. waaw série penalty ba hmm. waaw mi bokkoon na ci ñi raté. Hmm. moom ak kii quoi. moom El Hadj Diouf hmm. kon euh, équipe la yoo xamante ne bi équipe la boo xamante ne bi euh, doo jàkkaarloog moom di ko xeeb. waaw Sénégal par saa yi li ko indil jafe-jafe ci wàllu football. bokk na ci minimiser équipe xeeb équipe. mais bu fekkente ni day dajeek euh, la plupart équipe bu mag euh, dinañ gën a wane seen bopp. donc loolu mooy li nga xamante ni bi mooy li ci am solo mais tamit Cameroun ku yebu xam ni daal équipe la boo xamante ni bi équipe bu kii la bu mag la waaw donc ñu ngi ñaanal Lions yi sunu borom may leen ndam. Lions yi waaw. lion Sénégal yi parce que ay ñëpp ay lion lañ <laughs> waaw li nga wax dëgg la parce que <laughs> ay lion lañ ñoom ñëpp waaw ñoom ñaar ñëpp ay mm. waaw donc en tout cas daal tey xam naa ne dina nekk match boo xamante ne bii moom euh, match bu am solo la bu am solo la ci pour ñaari réew yëpp mm. pour ñëpp parce que Cameroun tamit daanaka boo ko gañee euh, génnagut géew bi quoi waaye mais boo ko gañee benn tànkam mu nga ca ñibbi waaw parce que il faut que boo ko gañee parce que tey Cameroun boo ko gañee qualification dootu nekkati ci ay tànkam maanaam buy football ak bi il faut que mu calculer sa diggante ak euh, euh, kii nu mu tuddati euh, non non Guinée maanaam da ngaa war a gagné Guinée après pour mu gay pour mu mën cee génn. ah waaw parce que am na nu muy demee parce que Guinée ak bi tey ñoom it situation bu doy waar parce que. Guinée Gambie bi dafa am defet comprendre Gambie am na défaite euh, Guinée amul defet moo Cameroun ñoo ki yoon maanaam waaw tey la waaw ñoom ñëpp tey la donc euh, loolu mooy li nga xamante ne bi moo ci ne mhm. maanaam poule la boo xamante ne bi tey euh, kii bu doy waar la nag situation bu doy waar mais nag daal kenn génnagul fi mu doon mais nag Sénégal moom bu gañe moom tey moom day génn moom ah, waaw jili yëg nga ni dem na ah, jili suñu waay bàyyi ji maam bàyyi ji coach la day entraîner fële gisoo ko fële bu nekkee fële bu nekkee fële gis nga ko entraîneur bag la léeg-léeg Aliou Cissé war na ko mën a bàyyi sax mu daa dee ñëw taxaw ah, ah. joxe affaire yi ah waaw bàyyi jili gisoo ko Philippe Gab keroog gis naa ko mu kii ba football 16 bi daan na lii lan la alors <laughs> mais moom nee na <laughs> nee na yuuxu lañ ko fa yóbbu yuuxu ah. te nee na yuuxu yomb non ba nañ ko jox xoolal na nekk at adjoint Aliou Cissé. Ah hmm, waaw parce que man maa ngi koy gis mi ngi mais coach la. ren kay wax dëgg yàlla ñu dem ñu moom bari na. ñu ngi leen même suñu yumpaañ fa dem suñu sëriñ yeeg ñëpp ñu ngi leen hmm, après naa si ñëwaat. xam <laughs> nga day bërëxal. waaw <laughs> ah, day bërëxal de. Hmm. mu <laughs> moom daa mel bu gàtt bee ko yóbbu sax Hmm. loolu de baax na si